biñ ñëwee sonné daal di dugg directement sax ci kër gi euh, ma daal di génn euh, comme ñoo ngi fekk ñuy añ ñu ne noonu leen bàyyi ngeen añ ma leen déedéet kon bàyyi leen man ma génn ma génn ñu ne ma yow dañoo gis ne nii da ngay wax ci sëñ bi te dañoo bëgg nga bàyyi ci nii wala ci naa ma ne leen indi leen benn vidéo wala benn audio boo xam ne nii dégg ngeen man ma wax ko ci sëñ bi ci jëmmi boppam loolu amul wax man ñi may waxat ñoom ñoo ngi dund euh, waaye ma bëgg xam rek lu bëri te néewut wala boog lu néew rek te bëriwut mooy ñëpp ñoo xam ne nii pare nañ pour jàpp ne ndax lii ñuy def nii ñun dama aadama man nako arrêté ci ay violence képp ku yaakaar lolu yow da nga djoum ku lako ko le da nga na bok djoum dedet violence du arrêté len na xëdër wala khabar khabar wala ay xeex ak i veina layal dara ko xamne ni amo xam-xam boy dem nañ fi lañ nekkon ni na len taxaw leen xaar dem nañ sen yoon képp koo xam ne ni yow li nga yaakaar da nga yaakaar ndax ay doole mom ngay layale sey mbir loolu moom mooy lottu doomu dama nit bu dee wax dara ci diine soo jogee taxaw ne dangeen koy layal wala ngeen jóg taxaw ne da koy layal xam-xam ngeen di yóbbu xam-xam ngeen di yóbbu mais pas ñëw ci buntu kër nit di xaadar xaadar di wax fii di saaga dem nañ ba yegg ci saaga ba alhamdulilah soxna si ci boppam sax moo mujjee mer sax ci seen kaw ala kulli haal may xamal mbokk yooyu ak yeneen mbokk yëpp ak ñoo xam ne nii ñoo leen jox indication boobu ne leen système bi ñu leen jox dañoo juum nit su waxee ci diine lim nga wax nga gis ne noonu dellul ci diini ji nga dajji ko nit su waxee dara li muy wax moom même amul liir wala laa même bu fekkee neex na la wala neexu la loolu leneen la waaye nag am nga droit nga taxaw mais nga weddi ko ci xam-xam kuy ñëw fii sama kër ne da ngay ñëw pour ne da ngay wax ah euh, non non du booy boobu du kenn moo tax carte la seen naa kooku ko arrêt kooku arrêt carte bi lay xaar ñii carte lañ du moom euh, <laughs> non dara rek mbokk képp koo xam ne nii da jog nga ne da ngay layal benn mbir xam-xam ngay gàddu nangam ak nangam wax nga ko de ñu ne waaw waa lan mooy ay firnde yi nit ki tegal la firndeem su tegulee ay firnde nga dajji ko euh, bugguma leen woon filmer <coughs> wax dëgg yàlla ndax bugguma leen tooñ xam naa ne xam naa ne ay victime lañ comme man ni ma weet nekkee woon victime ci mbir mu mel nii ndax li li tax wala ñi tax bañ jog ba ñëw fii wallahi la ilaha xayru damaa xam ne ni lima xam ñoom suñ ko xamoon doonuñu sax déplacé sax di tijji sax seen buntu kër yi sax jaru ko won rawat na ñew di tijji sama buntu kër gi ba ñew fi ni naan dañuy indi ay attroupement defé na ndax man loolu man yëngal na ma déedéet loolu day tax ma gëna a xam ne ni ñi liñ japp ni du dëgg ñi liñ japp du dëgg li ngeen nekk du dëgg du dëgg tey du dëgg suba ay nit a leen nax ngir dund ci seen kaw ña doon jàngale xam-xam ñoo ñu faatu nañ kenn jàngalatu leen xam-xam Euh, ñoo ngi jégalu ci loolu appel euh, benn appel moo ko dagg ñooñu ay jëmm lañ leen di gëmloo jëmm yooyu yéen ñoon ngeen gëm ragalloo wuñ leen yàlla jàngaluñ leen yàlla jàngaluñ leen yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam soo leen doon dox ci xam-xam bi ngeen ñëwee ba sama buntu kër ngeen ñëw ne ma dangaa wax nangama nangam ci sëriñ bi ma ne leen fan laa ko wax waroon ngeen koo génne te munu leen di indi benn wirgil boo xam ne nii nit a ko wax waxuma man sax de mais même keneen sax mu wax ko mu jëm ci jëmmi sëriñ bi loolu mën ta nekk amaa ñii di dund nag di dund ci kaw boppi nit ñi moom di dund di dund ci kaw nit ñi di jël nit ñi di leen wax ne leen Sénégal ku fi di wala loolu ma ne ku ko wax danañ ko daaj sànni jàll ba sànni jàll ba même diw moomu su demoon ca euh, wat ba vote ji même diw moomu su demoon vote ji même kan la moon Ndiaye kaw Seex naam euh, ah ok maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar Euh, dem euh, képp ko xam na ni dégg nga nit wax lenn ci diine ji su fekkee ne ni amuloo pouvoiru layu xaala laaw xaala rasul jëlee ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala ñëw layal ko soo yeboo nga dal ta teey soo yeboo nga toog te muñ koo xam ne nii dangaa bëgg a nax nit ñi na koo xam ne nii dangaa bëgg a nax nit ñi si demal demal demal demal استغفر الله الله اتق اتق الله اتق الله اخي استغفر الله اتق الله يا اخي اتق الله اتق الله اتق الله اتق الله اتق الله اتق الله يا اخي اتق الله اخي ragal len yàlla ragal len yàlla ci kàddu ragal ragal len yàlla ci kàddu ragal len yàlla mbok bàyyi non rek amul dara mer la rek way du dara euh yéen bi ngeen ñewé man dong ngeen fekk sama kër képp munu len ma déranger te wallahi lazim bu doon ci àll ba sax ngeen di soko xam man may kan bo leen ñëwee ci nit mu ne leen indi leen kaddu gu ñaaw bu ngeen mëna wax ne dama ko wax ci sëriñ bi ngeen di wax mais war ngeen ko mëna a mais ngeen ñëw bu bofu lott ci ben audio wala ben vidéo bo xam nit wax na ko ci wax ju ñaaw mu jëm ci benn mi def yeen ngeen taxaw ngeen yeen yene kaas bala ngeen di ñëw da ngeen waroon seen arme moy firnde bu ma leen ne wax ci sëriñ bi indi leen ko ngeen génnee ko ne ma mu ngi ni ya ko wax ma layal ko mbaama tukku amul leneen man ci gatch bu dee dëgg dama koy saal bu dul dëgg dama koy tuub mais luy dëgg duñ ci delloo kenn euh, non dem nañ non dem nañ seen yoon. waaye ala ala kulli aal ñoo ngi jégalu mbokk yi lenn ci mbokk yi sunnit yi nekk fii ci gox bi euh, ñoo jot ñu astaghfirullah astaghfirullah itaqillah itaqullah itaqillah ragala yàlla. salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum. ala kulli aal ñun ragaluñ nii ma Samba ragaluñ nii ma Demba liñ gëm dañ koy mani manifesté wu. dañ koy wane ku wax ci ji wax ju noonu diine ji ñëpp ko bokk loolu dañ koy weddi ak koo mën a doon ñoo leen di convoqué jarul sax ñuy tourné non jarul ñuy tourné duñ tourné incha allah taala non ñii duñ tourné ñii du non non live laa leen man kay nee naa leen maa def live fii teg wax naa leen ko ñoom fii bi ñu taxawee fii laa leen ne maa ngi nii di def live li ñuy wax dara du ci dëgg li ñuy wax dara amu ci li ñuy wax du ñëw. bu ñëwee du ñibbi. waaw la si la ilaha illallah bu ñëwee fii doo du ñibbi. ndeysaan ne ko ndeysaan ndeysaan. parce que man. waaw yéen maa ngi def man nag man nag aw ma yow laay bi laay teg jël sama paaka kat seen ndey. astafurlah astafurlah. waaye bañ a saak. ala kulli haal euh, ñoo ngi jégalu waaye li ma a xamal su nekk mooy ku seen Ousmane Cissé nga foog ne ndax benn nit la. wala nga foog ne ndax ni la ku doole mbokk bi sax wax na ma ko ne ma yow sa njëmb du dara mun nañ laa lekk ma ne ko mbokk a diina diina du loolu yëf yi nekkul ci poids nekkul ci quantité mais ci dëgg la nekk mbir yi du poids du quantité mais mbir yi dëgg la bu ma ndawee nii nga gis ma nii tamit mais li ma wax mooy dëgg te mënu leen ko dindi lii ñu leen loo ay nax la ñii ngeen topp nii dañ leen di tappale di leen nax di leen wan ne ñoo leen dugal aljana waxuñ dëgg ku leen ni moo leen dugal aljana waxu leen dëgg loolooy dëgg soo leen yaakaaree ne ndax mbir yi ci affaire poids la graisse bu bëri wala yàpp bu bëri non juum ngeen juum ngeen ixwaan yi juum ngeen dem leen jàngi xam-xam dem leen ngeen julli ji dem leen ngeen woori dem leen ngeen jaamu ci yàlla ñun lii ci lañ juddu bañu ñu cee dee ci la ñuy dund kon lii lañ gëm dañ koy wone bu ci suñ bakkan bii di rot gërëm nañ loolu bu ñu ciy tëj kaso gërëm nañ loolu ay bandi ngeen ay saay-saay ñooy dox jóge ko fene dem naa ñu koy jëm këru nit defe na yéen war ngeen a mën a ñëw déplace ci man virgule non yéen da ngeen a juum da ngeen maa waroon a laaj boo leen ma laajte woon danañ leen wax man maay kan boo leen dajee woon ngeen nekk junne lépp lu ma wax muy dëgg bu ngeen taxawee ma assumé ko mun leen di def ci man lu ma lu weesu ray ma man xam naa ay saaba yu janoo ak ay yéeféer yu leen gën a ñoo xam ne ay yéeféer lañ duñu wax laa la illallaah ma xam leen jàngiteen histoire ñu taxawal leen di leen daggete cër par cër démb ci guddi gi bi ma doon dalal cheikh moo ngi ciy net li kenn cër par cër ñu leen koy dagget terewul ñu sax ci liñ nekkoon habib subhanallah yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko yónni ci musaylima musaylima ñëw habib ñëw musaylima woo ko ne ko yow ndax gëm nga ne man yàllaa ma yónni mu ne ko dégguma dara mu ne ko ndax gëm nga ne yàllaa ma yónni habib ne ko dégguma dara ndax gëm nga ne Muhammad yonentu yàlla mu ne ko waaw gëm nga ne Muhammad ndawal yàlla la mu ne ko waaw ndax gëm nga ne man man Musaylima yónent laa mu ne ko dégguma dara gannaaw bu ko Musaylima xiifalee ba mu xiif ci gàttal mbokk yi Habib Musaylima da koo dagg cër par cër mbokk yi Abdullahi ibnu Salaam ma leen di xamal yéen ñëwoon fi tey ak ñi leen yebal ak ñi ngeen bokkat seen kuréel gi yëpp man bu ma amee lu ma leen di naw violence ci laa leen di naw man bu ma koy wax euh, bu ma leen di wax dama leen di dama leen di laayee bir mbokk yi déglu leen bu baax ci lima leen di wax ni l'islam la leen di wax man waxuma leen ay bay diiw neena ak mam diiw neena na Abdoulaye ibnu Salaam ab ko bu yéefar taxawal ko jël kenn ci soldat yi mu antaton ñu nekk 80 quelque mu jël kenn ci ñom duggal leen ci bari ko dewlin ko koku ya, yax ya yap wo Nyom fo ci bir yax yi rek génn ñu mbugal leen bugal mu metti bour bi taxaw ne ko yaw fi lañ mujj ak yaw ndax xam nga lolou Habla imusalam salam bënni bëtam di joy bi ko bi ne yow lan ngay joy daf ko ne wallahi len rek moma metti moy ben bakkan la yor soko ko jëlee dugal ko ci bëri ko dewlen bi bakkan bobu day day de man du sañon li nek ci karaw ci sama jëm ji yep day nek ay bakkan ngay jël yep di len dugal ci mbandum dewlen mi ñom ñep bam jeex tak waaye lima nakari moy ben bakkan rek bi yoré soko soo ci dewlen gi rek ma dé mu jeex yaa allah mbokk yi ñu taxaw fii ay ñetti nit juróomi nit fukki nit junni nit ñëw taxaw ngir kan Ousmane Cissé waaye man boo leen bu yéen mënu leen a def ray ma mënu leen a def lu paase xanaa dóor ma bu te yéen yéenay kan fakiiduuni jamii'an laa leen di wax la yonent bi yàlla ba waxoon ay noonam fexeel leen ma yéen ñëpp summa laa tunzaruuni bu leen ma muñal xaar leen tey laa wax tey maa ngi leen di xaar fii newoon naa wax naa leen ko fi bi ngeen départ dama leen ne maa ngi nii di def live nii en direct weddi ne li ngeen gëm mooy am na ku leen di dugal aljana lool du dëgg li ngeen gëm mooy ju ñàkk ju lek ñàkk a woor ak ñàkk a joxe asaka diina la ku ko gëm da ngaa tarxis njuumte la salaamaaleykum wa rahmatulah